ngeen jëf mbalaanum kiir layu Ousmane Sonko bu doon lu mu la nañu xam ne tànk yaa nga ca biti fukki fan ak juróom ci weeru février ci lañu ko fas yéene samp ci àllarba ja fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru février ñu woolu Ousmane Sonko déglu ko buñ ca noppee def seen rapport déposé ko ci la ñuy soog a wote appelañ bu bi ñu convoqué bureau assemblée nationale ngir doon ca waxtaane lever immunité parlementaire bu Ousmane Sonko ci fukki député ak juróom-ñaar yi newoon ca ndaje ma ñaar rekk ñoo ne ànduñu ci waaye fukki député ak juróom ya ca des ko nee nañu moo di député Cheikh Abdou Bara Dolly ak njiital parti Pastef ma nga ñu jàngte jàngtee jëm ca fa ñu koy sànke teg nañu démbu jéego bu njëkk bi jëm ci dindi mbalaanum kiirlaayam ci assemblée nationale Walf Quotidien ne ko assemblée bi livré na Ousmane Sonko koy ngay wax mu gën a gaaw gën a gàtt leetar bi avocat yi Ousmane yi bindoon président assemblée nationale ba am ñeenti mbir yu ñu ca doon sàkku ngir ñu jëfee ko laata ñuy dindi immunité parlementaire leetar boobee Walf nee nañu da koo xutti faale wu leen sax Sud Quotidien nañu moom président Moustapha Niasse assemblée nationale moom procureur bi mu di nañu ab sëriñam wasilam di Serigne Cheikh Abdou Mbacké demaloon na ko ci Serigne Mountakha Mbacké xalifa général des ngir yegg ko coow li ak la ca am yëpp yëpp ba xamal ko ne lii lépp du dara lu dul complot bu nguur gi ngir bëgg fexeel Ousmane Sonko Le Quotidien nañu waaye président Macky moom it ba mu yëgee loolee yàggalu ko fenn saa si la déggante ak xalifa général des mourides di sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiru ba xamal ko moom it 53 d'un 0 di Serigne Mountakha ba xamal ko moom it ne li ñuy wax 53 ba xamal ko moom ne li ñuy wax moom président Macky Sall taqewu ci laalewu ci yëfi yëfi privé la yëfi privé yooyee di massage Ousmane Sonko bi keroog ba mu xewee ca salon de massage ba waa ji ñu ne moo ñëwoon jël si Adji Sarr ak otoom ci guddi gi te ñu ne mbokk la ci kilifa gu nekk ci nguur gi waa joojee jarbaatu Maodo Malick Mbaye la journal Source A moo ko bind joxit kàddu gi directeur général bu ANAMO di m Malick Mbaye muy dëggal ci xët mu njëkk journal bi ne waa joojee jarbaatam lenq la benn ab soldat di sous-officier bu sant Dieng la teg loxo ba yóbbu ko kaso ndax tuumay càcc l'observateur moo joxe xibaar bi ba wax ñu ne soldat bi ci hôpital militaire bu wakaam la doon liggéeye barab ya ñuy denc garab ya di stock médicament foofee la doon garde waaye ci weeru octobre ci la waa ministère de la santé njoxte trafic produit hémodialyse bu am ci hôpital militaire bu wakaam dañoo demoon ba seetlu ne yëf yi dafay manqué saa su nekk te li muy manqué ko livré waa a ni gendarme yi def ba jàpp ko l'observateur leeralal nañu lépp ba tegal ñu ci ne soldat bi bi ñu ko jàppee weddiwul ndax moo wax ci làmmiñu boppam ne yàgg na sàcc matériel hémodialyse yi di ko jaay mu di ay rein artificiel acide critique ba ci ay carbonate ci gàttal jaay na ca valeur ñaar fukki million ba ñu koy jàppit moom waa yi mu sàccoon ca l'hôpital bi ba bëggoon koo jaay mi ngi tollu ci fukki million million ak ñaar ñaareelu yéenekaay bu xëyee loolee moo di journal Libération bind na ne soldat bi doon sàcc garab ya ci l'hôpital militaire bu Wakaam doon ko jaayaat sergent Ibrahima Dieng la tudd ay kit médical la yu ñu jagleel ñi amee feebaru roño état bu Sénégal jëndoon ko dénk leen ko moom la doon roñ di ko dugalaat ci marché bi di ko jaay yéenekaay bi nañu ay millions yu bari la bi ko gendarme yu section recherche yi di jàpp dañu ko bett mu sàccoon ay matériel ba waroon koo livrer comptoir commercial